asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di leen ndokkeel di am mbégte ci li ñu yàlla subhaanahu wa taala kàttanal ba ñu mën jàkkaarloog yéen di waxtaan ndax ku man rek moom la subhaanahu wa taala mu mel na kon ñu ngi waxtaane ci wàllu nit su feebaree ban taxawaay la ko islaam wax mu taxawu ko boppam ak yitam ñi mu nekkal di ay mbokk jullit yan taxawaay lañ ko war a taxawoo mbokk yi xam ngeen ne àdduna mooy kër gu nga xam ne loo gis rekk ñaar la fi boo nee tàng ne sedd boo nee neex ni naqari boo nee guddi ni bëccëg boo nee ku guddi nekk njool et cetera et cetera looloo tax kon foog boo nee wér baax na itam nga ne feebar ginnaaw nag wér ak feebar ñaar la yoo xam ne ñoo ànd ci suñu dund lislaam wutal jullit bi ay yoon ak i méthode yu nga xam ne bu feebaree noonu lay taxawoo boppam waaye itam mbokki jullitam yi noonu lañ koy taxawoo waaye bala ñëw dugg ci thème bi nag dañuy bàyyiloo xel ne jullit bi lu ko dal rek war na def ci boppam ne yàlla subhanahu wa moo ko ko teg ba nga xam ne du saalit ba mu ëpp ndax yàlla ku la mën a bëgg rek yàlla moo la gën a bëgg kooku moo xam waajur yi la moo xam xarit yi la moo xam yow sax li ngay gën a bëgg sa bopp yëpp yàlla moo la gën a bëgg sa bopp li ngay bëgg sa bopp yëpp yàlla moo la gën a bëgg sa bopp puisque yow xamoo li gën ci yow mais yàlla moo ko xam moo tax kon bu la tegee feebar itam dangay gis ne derrière feebar boobu am na benn volonté bu ci nekk waaw maanaam am na yàlla lu mu ci bëgg volonté divine mun na la teg feebar fekk daf la bëgg teggil say bàkkaar mun na la teg feebar fekk dafa bëgg a yëkkati say daraja daraja yi nag waxuñu daraja yi àdduna mais daraja yi aljanna la waa puisque ñi nekk aljanna yépp nekkuñu o même degré nekkuñu au même pied d'égalité mais dañu rawante alors moo tax kon nit bu feebaree war na delloo boppam ci yàlla di muñ ndax yàlla bëgg gum bëgg jullit bi di muñ moo tax am na aaya yu bëree bëri bëri yu mu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko ci soññ ak di ci soññ xeetam ci wàllu bu nattu amee ñu teeroo natt bi ak muñ wax na ne wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi walthamarat wa bashir alsabirin alladina ida asaabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun alors kon yàlla nee na nattu bu ñëw di ab xiif muy li tubaab di wax sécheresse wala nattu bu ñëw di insécurité muy réew mu amoon jàmm wala gox bu amoon jàmm ba amatu ko wala natt bu ñëw tegu ci bakkan yàlla jël bakkan bu la jege wala xarit boo xam ne boo fonkoon la wala nattu ñëw aju ci gàncax yi mu doon taw tawatul yooyu yëpp daal nañu bàyyi xel ne bu ñëwee nañu ko teeroo baat bi ci yàlla la jóge woon wala ci yàlla lañ jóge te ci yàlla lañuy delloo maanaam kon lu mu jël rek nañu nangu ne lu mu moom la kon wér sax moo ko moom bu la ko joxee ba jël ko jàppal ne lu mu moom la jël te lam la koy remplacer moo koy gën waaye nag euh, feebar jot rek nga saalit loolu euh, doon na loo xam ne ñun ñëpp war nañoo maasendoo di ko jéem a moytandiku alors gëm yàlla nag dàqonteewut ak faju waaw faju teewul nit ki gëm na yàlla moo tax nit bu feebaree lislaam da koo sant mu faju waaye lim koy sant sant mu faju nag faju dafa am ay dawaabit ak ay shuruut maanaam ay condition mbokk yi xam ngeen ne jullit sañu ta fajoo lu xaraam lu muy fajoo lu nekk dafa war a dagan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa ne inna allaha lam yunzil daan illa anzala lahu shifaan fata daawow yenent bi li mu njëkk a wax sax mooy daf ñuy njëkk a encouragé ci ñuy faju moo tax mu ne yàlla feebar bu mu wàcce rek wutal na ko garab kon nañu sabablu ci di faju di seeti docteur ba wala di seeti tradipraticien ba di faju ci ñoom ndax loola xam-xam bu leen yàlla jox la faju bi ñuy faju ci ñoom nag respecté may gi yàlla subhanahu wa taala def ci ñoom ci cadre boobu lay dugg waaye nag waxoon naa ne yàlla yërëm gu ñu yërëm ak baax gu mu baax moo tax garab yi ñuy faj yépp nekkul ci lu xaraam nga xam ne nit su feebaroon bay fajoo ji ci sàngara wala mu feebar bay faju ci ci mbaam xuux nañu jàpp ne dafa xalaatul mais bu xóotuloon gëstoom faju ba muy def ci sàngara bi wala mbaam xuux dina am leneen lu ko faj te lu dagan lay doon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo ne inna allaha lam yajal shifaakum fi ma xarama alaykum yàlla subhanahu wa taala nee na wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu faj anam suñu guérison yàlla defu ko ci li mu xaraamal nga xam ne kon li ma waxoon sànq rek ki feebar bañ ne ko mbaam xuux rek la mën a faj ki ko ko wax dafa amul xam-xam bu gënoon a gëstu rek dina gis leneen lu koy faj loo xam ne du doon mbaam xuux ba ki feebar bañ ne ko sàngara rek moo lay faj ki ko ko wax dafa xóotalul gëstu mais buñ gënoon a xóotal gëstu rek dinañu gis leneen lu koy faj lu dul mbaam xu lu dul sàngara boobu ndax yàlla liy faj jullit yi defu ko ci li mu xaraamal mbokk yi tamit dagan na nit di fajoo ci wàllu ay mocc soit mu mocc boppam wala mu dem ci keneen mu de ko ko moccal waaw waaye nag mocc boobu itam dafa am chart charte bi mooy na doon ay baati alquran wala baati zikkar wala baati sabbal wala bu doonul sax baati alquran na doon baati yoo xam ne ak bokkaale du ca am baati yoo xam ne itam du xaram mais kuy mocc ba noppi di wax baati yoo xam ne day bokkaale yàlla wala muy wax baat yoo xam ne day xas alquran wala muy wax wax baat yoo xam ne day xas yonente yi wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala muy wax baat yoo xam ne dafa am ay saaga nañ ko fa bàyyil ak moccam te wuti leneen lu dagan waaw mocc gi daal day nekk alquran wala bu dul yi itam mu doon baat yoo xam ne yu yiw la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne laa ba'sa bir ruqa maa lam yakun fihi shirkun nee na mocc dagan na ci kaw nag su fekkee baat yi ñuy mo mocce làmboowul ay termes yu bokkaale alors ñu jëw ci wàllu takk téere ndax loolu itam lu dagan la wax dëgg yàlla gis nañ ne takk téere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko xaraamal waaw xaraamal la cib julit muy takk téere parce que daf ne man allaqa tamimatan faqad ashrak téere ku ko takk ku ne bokkaale nga téere ku ko takk ku ne bokkaale nga mu ñëwaat itam ne man allaqa tamimatan fala atamma allahu lah wa man allaqa wadaatan fala wadaa llaahu la képp ko takk téere di wut loo mottali ko yàlla bu yàlla mottalil dara képp ku téere di loo mottali yàlla bu yàlla mottalil dara ci yow nga xam ne kon au lieu mu lay mottalil mais daf lay gën a manquel moo tax ñu ne sax am na benn waay boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko gis mu takk ak fas bi mu takkee fas gi lu ko yonent bi wax def na ko way xakka ma haadi qaala min alwaahina qaala inzichaa fa innaha la taziduka illa wahna wa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflaxta abada ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa gis benn waaye mu takk ak fas mu ne ko waaw lii lan la mu ne ko lii day ñu ngi koy tuddee alwaahina alwaahina littéralement maanaam lugawiyan li muy tekk ci arab mooy lu doye di c'est-à-dire le faible une chose faible waaw mooy alwaahina lu doyadi lu faible mu ne ko a ah, dindi ko ndax lii kat boo ko takkee da lay gën a doyadil rek da lay gën a yokk faiblesse rek te boo ko faatuwaalee doo texe mukk léegi nag kon ñu war a ngay ñaari mbir muy téere boo xam ne ci alquran lañ ko bindee wala ay hadis wala ay zikkar ak yooyu ak loo xam ne ay fas wala ay xaaw ak yu mel noonu mbokk yi bu fekkee ay fas la wala ay xaaw wala ay galen loolu moom laa sakk ci ne xaraan na amul sax ay weranteeki sikki saakaa ki demal ak dikkal mais nag su fekkee téere boo xam ne ci alquran lañ ko binde loolu itam am na lu ci jara leeral li ci jaral leeral mooy euh, su fekkee xale bu ndaw la loolu itam dara nekku ci dagan na ndax xam ngeen ne daanañu def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi daan bind falaqi ak naas takkal ko xale bi waaye dañu gis ne nag xale bi bu demee ba màgg ba mën a wax ba am juróom-ñaari at dañ koy jàngal falaqi ak naas mu koy wax au lieu que mu koy takkate kon takk téere daal bu ñu gëstu ci lislaam fi mu dagane mooy xale bu ndaw ñu bindal ko takkal ko bu demee ba màgg sax da ko war a bàyyi waaye mag muy takk téere sax loole ci lislaam moom euh, gisalu guñ ko cëslaay kon téere alquran ñaan yi ñu war a ja yi bi jàngale yépp gisuñ ci ñaan bu ñu takk vraiment gis nañ ci ñaan mu ñu takk ñaan yëpp yu ñu war a wax la kon yooyu itam ñu war koo bàyyi xel mbokk yi nag ci wàllu ñaan yi ñu war a wax yan ñaan la yonent bi daan fajoo loolu itam ñu ñëw ci mbokk yi ñu déglu lii ñuy bëgg a wax bu baax a baax yonent bi daana faral di def su feebaree suwaat tànk bi metti wala bopp bi metti wala biir bi metti mu jël loxoom teg ko ca tànk bay metti wala mu teg ko ca biir bay metti wala mu teg ko ci bopp buy metti wax baat yi may bëgg a wax baat yi mooy lan allahumma rabba annaasi adhibil ba'sa ishfi anta shaafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yugaadiru saqama waaw kon mel na ni yonent bi lim ñu tere jox nañu lu ko gën puisque daf ñu tere ay euh, moci yu ànd ak bokkaale tere ñu itam takk ay téere moo tax nag mu jox ñu ñaan boo feebaree au lieu que ngay takk tiir ñu la xaaw bi wala galeen bi moo koy faj waxal baat bi waa jël sa loxo rek nga teg ko fay métti rek nga ne allahumma rabba nnaasi adhibi lbasa ishfi anta shaafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yugaadiru saqama baat yooyu lan mooy lan lay tekki da nga ne allahumma rabba nnaas yow yàlla yaay borom nit ñi adhibi lbasa sama feebar bi yàlla nag ma ko dàqal mu dem ishfi anta shaafi yàlla nag ma faj ndax yow rek yaa mën a faj la shifaa illa shifaa uka kenn munta faj kudul yow la shifaa an laa yugaadiru saqama te sa faj li ko wutaleeg yeneen faj yi mooy boo fajee day dem ne mes dara du fa desati kon loolu benn ci ñaan yi la beneen ñaan bi mooy am na bis am ku ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi ne ko man day dama feebar nan laa war a ñaan yonente bi daf ne ko daa yadaka ala alladi ya'lamu min jismika aw daa yadaka ala alladi ya'lamu min jasadika wa qul bismillahi wa qul sab'a marratin a'uudu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaadir maanaam daa am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man day dama feebar nan laa war a ñaane mu ne ko saa boo feebaratee jëlal sa loxo nga teg ko fay metti bu dee tànk la nga teg ko ci tànk ba bu de bopp la nga te ko ci bopp ba bu dee mbagg la nga teg ko ci mbagg ma nga wax lii lan ngay wax mooy da ngay wax bismillah boo ne bismillah baat yi may bëgg a wax nga wax ko juróom-ñaari yoon maanaam bismillah ngay wax benn yoon teg ca lii nag lii moom juróom-ñaari yoon nga koy wax muy lan audu bi izzati llahi wa qudratihi min charri ma ajidu wa uxaadir mooy lan maa ngi ñaan yàlla ci barkeb kàttanam ak puissance am muy sañ-sañam mu musal ma ci ayu feebar bi may jànkonteel boo xoolee muslim solo ne ne yonente bi sax da daan feebar jibril ñëw di ko mocc loolu boo demee ci saxiixu muslim daa ko ca fekk muslim nee na am na benn bis yonente bi sallallahu alayhi wasallam feebar jibril ñëw mocc ko ba mu koy mocc lan la ko wax lan la wax yan baat la jëfandikoo mbokk yi mooy baat yi may bëgg a wax bismillahi urqiika min kulli cheyin yudiika min charri kulli nafsin aw ayni xaasidin allahu yasfiika bismillahi urqiika baat yi la jibril mocce woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam baat yi lu muy tekki def ne ko bismillahi urqiika min kulli shay'in yudik lépp lu lay metti rek maa ngi la koy moccale ci barkeb turu yàlla min sharri kulli nafsin maa ngi lay ñaanal ci barke turu yàlla nga mucc ci ayu bépp bakkan aw ayni xaasidin maa ngi ñaan yàlla musal ci bëtu ko iñaan allahu yashfika bismillahi urqika yàlla na la yàlla saafara maa ngi lay mocc ci barke turu yàlla kon mbokk yi bu ngeen dégloo sama wax bu baax kon dafa mel ni kii ci biir sunna am nañ ci ñetti xeetu baadi yu mocc waaw ñetti xeetu baadi yu mocc yoo xam ne bum ci mën a doon rek nit bu feebaree day teg loxoom fa koy metti mu wax baadi yooyu première bi bu la neexee nga teg sa loxo fa nga fay metti wax baadi yi dama koy wax nag ndànk pour ku ko mën a noté noté ko allah bi ci njëkk mooy boo feebaree bu la neexee nga jël sa loxo teg ko fay metti wax baat yi mooy lan allahumma rabba nnaasi adhibil ba'sa ishfi anta shaafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yugaadiru saqama boobu benn la ñaareel bi mooy bu la neexee nga teg sa loxo fi nga xam ne moo lay metti itam bi